إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki alhamdulillah suñu boroom mayaat nañu tawfiq ñu daje ci ab néegam ci weeru tëdd wi di weeru koor di fas yéene jàng ab téeréem bi mu wàcce woon ci weeru koor loole di ngëneel gu rëy gu muy jagleel ku ko neex ci ay jaamam nim ñu ko jagleele yàlla nañu ko nangule boolem it ñu nga xam ni waxtaan yi day yegg ca ñoom yàlla boole ñu ak ñoom ñépp ci ñi seen xol aju ca jàkka ya ak la ñuy def ca jàkka ya ñi nekkoon ak yéen ci saar bu mag bi di sóoratu nuur muy saarug leer gi nga xam ni société bu ko comprendre lépp leer ci seeni mbir société bu ko dummóoyu lépp lëndëm ci seeni mbir loole ñi ngi ñëw ca la ca des bëreetul ci aaya juróom fukk bi ak ñeent fi suñu borom di waxee ni qul atiu llah wa atiu rasul insha allah bu dee cheikh ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk barakallahu fikum aouzu billahi min alsheytaani irrajim suñu boroom jalla wa ala mu ni qul atiu llaha wa atiu rasul ngalla waay topp leen yàlla ca topp yonent bi fa in tawallaw su dee da ngeen a dëdd wone gannaaw fa innama alayhi ma xummila dana war ci moom lañ ko yen ay res lañ ko gàll gàll mu war koo jëfe wa alaykum ma xummiltum dana war ci yéen liñ leen yen yéen tamit ca mooy ngeen topp ko suñu borom mu ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee nag da ngeen jub wa ma ala rasuli illa al balaagul mubin du ñeel ab yonent lu dul jottili goo xam ni jottili gu leer rekk la waada allahu lazina amanu minkum yàlla ngi dig ñi nga xam ne dañoo gëm ci yéen wa amilu salihat te jëfi la nga xam ne mooy jëf yu yiw ya la yastaxlifannahum fi l ard danaa leen wuutal ci kaw suuf ay dalal leen ca def leen cay njiit kama staxlafa allazina min qablihim comme na nga xam ne noonu la fa wuute la woon ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon wala yumakkinanna lahum diinahum allazi irtadaa lahum dana leen dalala it dana leen dalalal saxalal leen seen diine ja nga xam ne gërëm na ko ñeen leen wa mi ngi noonu wala yubaddilannahum min baadi xawfihim am na dana soppi it gannaaw seen tiita tiitaanga ga la nga xam ne mooy ak dalu kóolute yacbuduuna ni laa yushrikuuna bi shay'a su ko defee ñu may jaamu dañ ma bokkaaleeg dara wa man kafara ba'da zalik koo xam ne nag weddi na gannaaw li fa ulaika humul fasiquun ñoom day ñooy ñi génn topp wa aqimu salaata wa aatu zaka taxawal leen julli te joxe azaka wa atiu rasul te ngeen topp yonent bi laallakum turhamuun ngiree ñu yërëm leen mi ngi noonu mbokk suñu boroom dafay wax ci sunu aaye bi nga xam ni dafay am lu ñu tuddee ay aaye clé ci téere bi yàlla bi jullit ñi war ko bàyyi xel bu baax bokk na ci aaye bi ñu jëkk a jàng yelloon na ci jullit ñépp comprendre ko amul ku koy comprendre lu dul sa diine jub awalan suñu borom dane qul atiu llah neel topp leen yàlla bokk na orientaliste yiñ daan jël ñu yóbbu leen ci monde arabe ñu jàng langu arabe ngir mën a xeex diini li leen gënoon a jaaxal ci alquran mooy qul loolu nuñ ko mën a justifier soo bëggee wax ne muhammad moo wax alquran di wax wax ak boppam ba pare naan qul loolee day wane ne ah muhammad mi am na ku koy wax lu alquran loolu mi ngi noonu doonte ne ni yal nañu yàlla musal ci ak mbew am na benn booru arab boo xam ne nii dafa jëloon alquran di ko critiquer bokk na ca lam doon wax non xul yi nekk ci alquran mën nañ ko supprimer amul benn sens mi ngi noonu jamono jooju waa ña yor ubbee xam-xam ci Arabie saoudite dañoo déci dañoo décrété woon ne moom ab yéeféer la mu créé benn téeréem la ñu tuddee benn livre vert jàngal ko gone dëkkam yépp mu nekk daanaka sukkandukaay après alxuraan waaye mbokk yàlla subhanahu wa taala ci kattanam toroxal na ko ci kanamu àdduna yépp ñépp di ko gis ab buur bu yàlla toroxal mu ne janj janjaaral solub kilotam ñu koy dàq muy daw ci réewam ba baa ñu koy rey bokk na lu mu doon wax ne xul yi nekk ci alxuraan amul sens waaye mbokk déedéet ndekete yàlla xam li muy wax xul yooyu moo jaaxal orientaliste yi suñu borom nekkoon topp leen yàlla te ngeen topp yonent bi waxul topp leen muhammad de topp leen yàlla topp leen yonent bi ndax yonent bi moom yàlla ko yónni ca lañ koy toppe ñu ngi noonu de yonent boobu la suñu borom yàlla ni su dee ne wane ngeen gannaaw bañ koo topp moom am na responsabilité am lan mooy responsabilité am mooy wa ma ara rasulu illa al balagh yonent jot ci li dong mooy responsabilité am waaye nag topp leen ko lu tax mooy wama yantiqu anil hawa yeneen du wax mukk ci bànneexu bakkanam boo ko gëm leen ne diine yàlla ji amul lenn loo xam ni yonent yàlla muhammad dolli na ko ci lum ci wax rek yàlla ko jox ndigal bal borom bi sax nee nañu walaw taqawwala alayna baad al aqawil la axasna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu haajizin su doon li ma ko waxloo da ca doon la ay waxi boppam kon day doon naa ko jàpp jàppin bu dëgër bil yamin mooy jàpp kattan dagg la nga xam ne mooy bu mu xolam léegi nag liñ day laaj lu yeneen ci yàlla yi bi sañul ci diine yàlla ji ndax ma sàmb sañ na ko ci wala ma dembe sañ na ko ci moom dañu koo sant lan illa al balaax sant ñu ko mu sos ci dara ñaar yooyu di loo xam ne jullit war na koy bàyyi xel fu mu toll mooy maadaama yonent yàlla bi wa ma yantiqu anil hawa beneen bi suñu borom mu ne yii nit am ngeen responsabilité lan mooy suñu responsabilité mooy wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lii mooy responsabilité jullit ñi yonent bi moom mooy jottali jullit ñi ñoom ñooy jël mi ngi noonu lépp loo xam ni jël na ko indi na ko dañ koo war a jël ci sunna ci xam ne ci yàlla la jóge ndax du wax ci bànne ko bakkanam loolu mbokk bi mu amee suñu borom nag nekk dig ñu ni wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen toppee yonent bi jub ay mbokk julit suñu borom noppal nañu ngërëmal yàlla nga bëgg toppal yonent yàlla diina ju jub nga bëgg toppal yonent yàlla xatta li jëm sa wàllu àdduna amul kenn kuy jëfe sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njabootam lu dul mu nekk ngën ji bàyyi nekk ngën ji jëkkër jëfe ko ci ñam yi liggéeyal lu dul mu nekk ngën ji chef jëfe ko ca kam yi liggéeyal mu nekk ngën ji employé amul lenn loo xam ne aju na ci suñu wàllu doxalinu àdduna bi lu dul yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci exemple yi gën a kawe du wàllu atti du wàllu guerre du wàllu économie du wàllu lu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane na ci yoon boo xam ne in tuti'uhu tahtadu loolu tax borom ji wax ñu feneen laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ngeen bëggee royukaay bu rafet du ngeen juum ci seen mbiru diine lépp li ngeen di def gëstu leen ba xam naka la ko sunna diga naka la ko sunne santaane mariage ba la miraas ba la ngénte ba la lu mu mën a doon xoolal na ko sunna santaane rek in tuti'uhu tahtadu suñu borom mu ni wa ma ala rasul illa al balagh mbokk yonent yàlla bi jottali moo ko war li ñuy laaj mooy ndax yonent boobu avant mu fiy jóge mission defu ko aha kay mbokk julit yàlla seedeel na ko ne jottali na taxaw na ci kanamu sahaaba yi ci ajug tàggatoo ga taxaw ci lu jege plus de cent et quelques mille te loolu nombre boobu bu ñu ko doon évaluer ak trois millions yi ak tey moo gën a ëpp sens ci jamono yooyee lu jege cent quarante mille wër ko sallallahu alayhi wa sallam mu defal leen discours bu tàggatoo ba gannaaw bu mu leen hal ballaxtu ndax seede ngeen ne jottali naa li ma yàlla yónnoon ci ñëw ci yéen ñoom ñépp ñu seedal ko naam mu ne allahuma shahid yàlla seedeel kon yenent boobu jottali na la nga xam ne muy diine yàlla ci bokk julit naka la ñuy demee ba mille ans après ay siècle après benn waay génn ni yonent yàlla muhammad ñëw na ci moom jox na ko loo xam ne moo gën la sahaaba yi doon dund ndax man ngeen a nangu loolu et pourtant loola fees suñ diine ji loola fees suñ diine ji gox bu ne am na ko fa wooti na yonent bi dikkal na ko siècle bu ne am na ko génn na yonent bi dikkal na ko jox na ko loo xam ni nii moo ëpp valeur téeméeri junni yoon la sahaaba yi doon nekk bokk na ci koo xam ne nii nee na yonent bi du gént dafa ñëw en direct ànd ak jibril toog ak moom jox na ko nu ñuy julli ci moom benn rek moo gën juróom benn junni kaamil loolu mbokk dañoo judd fekk ko fi waaye judd fekk ko fi taxul bu baax de mbokk la doon diine mooy la yonent bi alayhi salaam jot ci li woon ndax suñu borom mu ne ko wa ma ala rasuli illa al balaax waaye yow miy jàng wa ma ala rasuli illa al balaax it jàppal ne yonent yàlla bi di su ko jaamu de yonent yàlla bi di su ko yaakaar de di sukkandiku ci moom de di xettiliku ci moom de wa ma ala rasuli illa al balaax yonent bi lan nga siq ak moom mooy jëli ci moom ndigal yi jëli ci yiy jóge ci yàlla amma jaaxle di ko woo di xettali ko ci moom di ko yaakaar abadan wa ma ala rasul illa albalaax looloo tax da ngay gëm ni rasulun laa yukazzab abdun laa yu'bad yeneen ci yàlla bi ñaar yii la ab jaam la kenn du ko jaamu yenenti la kenn du ko weddi jeex na wa ma ala rasul illa al balaa kenn du jaamoo yàlla lu dul na yonent bi indee mbokk aay bi bu ñu ko comprendre woon rek dem ni bi suñuy kër doyoon na ci tafsir bi mooy ku nekk comprendre ko jéem koo jottali kum ko mën a jottali mi ngi noonu amma suñu borom subhanahu wa taala nag gannaaw loolu mu ne mi ngi dikk ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax ñiy gëm cay def lu baax wax nañ leen ko dégg ngeen ko ci ñeneen mbokk diini lislaam ñaar la mooy al imaanu saxiix wal amalu saalix gëm gu sell ak jëf ju baax képp kuy woote ne gëm nga ca gëm rek mooy l'essentiel xamoo diine képp koo xam ne yaa ngiy jëf ci sa ngëm baaxul xamoo diine fokk nga boole ñaar yi borom bi nee na nag ñu mel noonu danaa leen dalal ci kaw suuf jox leen xilaafa ay ñu jiite suuf am pouvoir ci kaw suuf comme na ma ko defele woon ñu leen jiite woon ca nekkoon ñu gëmoon ca doon def lu baax seen diine danaa leen ko saxal te muy diine jooju nga xam ne yàlla da koo gërëm te loolu it day feddali aaya bi ci kaw mbokk yàlla moo seede ni diine ji matal na ko ba mu gërëm ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina bis na ki tey matal naa seen diine mottali naa ko gërëm naa ko nii laa ko bëggee looloo tax yéen ñi bëgg ngërëmal yàlla bul jaamoo yàlla lu dul na ko sahaaba yi doon jaamoo ndax sahaaba yu kat la yàlla di waxal fi muy wax ñi ne di li nga xam ne diinahum lazir tadalahum borom boobu it teg ci ne seen tiitaange gi danaa leen ko soppil mu nekk kóolite mbokk ñun dañoo dajeek islam bi nga xam ni dañoo prêt à porter la ñun moom lañ dajeel islam bu ñu defar ba mu jekk dañoo ñëw rek di jëfe waaye jaaraamaa sahaaba ya yal na yàlla fayal ñu sahaaba ya donc sahaaba yooyu ñoo takk woon gadday seeni kër takk seeni ndiggi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa Madina teeru leen yaatal leen dalal leen waaye yéeféer yi ne duñ ko seetaan ñoom ñoo dajeek ñoom ca Badar gañe leen depuis ñu gañe yéefiri ca badar nag jàmm jeex na biir madina yéefiri yépp a takkatoo nañu ne lii di menace bi moom fokk ñu fay ko ci kaw suuf loolu mooy indi woon gazatu uhud yéefiri dem dajale ñetti junni nit ñëw madina ca jamono boobu yonent bi mille nit ñoo mënoon a xeex biir madina loolu nekk benn tiitaange boo xam ne gazatu uhud yàgg ngeen ko dégg doy na doy na histoire ñu teg ca ñaari at lii di ghazatul ahzab am ca moo di ne ne waa makka ànd ak yahud yi nekkoon ca xaybar ànd ak ñu tuddee giir gu mag bu ñu naan tuddee waa ghatfan comploté ak yahud yi nekkoon ci biir madina muy bann qurayza ñoom ñépp ñu comploté ne tey dañuy fay l'islam ci kaw suuf biñ ñëwee histoire ba daa ngeen ko dégg ci yeneen waxtaan yàlla xelal na yonent bi jaarale ko ci salmaanul farisi mu daal di def benn fossé bu mag benn ngaare bu mag ñu wër Madina ba gaa yi mënuñu faa dugg waaye gaa yi campé leen pendant un mois un mois boo xam ni force yooyu ñu ngi encercler Madina waa Madina kenn du génn bés bu nekk ñu naan tey la gaa yi def asu suba la ñuy def asu tey la ñuy attaqué suba la ñuy attaqué pendant un mois ba yàlla moo mujj intervenir wàcce armeem wàcce ngelawam daq yee firi ñu dem ci xaal boobu la saxaaba yi doon dund képp ku daan tëdd da ngay dajale sa arme yépp teg sa bopp lal dajale sa takkaay yépp teg sa bopp lal ndax guddi gu nekk mën nañ ñi jóg leen guddi gu ne mën nañ ñi jóg leen ba saxaaba yi nag dañ doon wax naan cëy ay waay kañ la ñuy toog suñu kër yi nelaw ba yandoor suñu borom nag wàcce leen aaye bi ni dig naa leen ne bis dana ñëw ngeen nelaw ba yandoor du ngeen ragale ci dara mu ne yàllaa ngi dig ñi nga xam ne dañoo gëm ci yéen ca bokkaale wuñ ko dara bis dana ñëw mu dalalal leen seen diine ji soppi tiitaange ga la nga xam ne mooy dal ca loolee mbokk la yàlla subhanahu wa taala mujj def yàlla mujj naa may ndam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ñëw ubbi makka bi nekkoon capitalu la nga xamee ni nii moom mooy kéeféer xaybar googu madina yéefér yi nekkoon mu dem ubbi ko bani Qurayza yi nekkoon madina trahir ko mu rey leen jël seeni soxna def ay jaam la nga xam ne mooy ah presque arabique bi yépp daanaka saxaaba yi jeexuñu lu dul lépp dugg na ci lislaam mujj empire yu mag yi ñoom ñooy tiit mënuñoo nelaw di xalaat yeneen bi alayhi salaam waaye saxaaba yi koy ragalatuñ kenn ca la waxoon saxaaba ya nusirtu bi ruqb masirata shahr yàlla may na ma samay ndoon bu ma leen dandee doxu un mois dootuñu nelaw guddi waaye saxaaba ñoom am nañ gu dal mbokk lii lan moo leen ko may mooy ngëm gu sell ak jëfe sunna bu àndul ak benn rax borom boobu nag ni ñu mel noonu daan taxawal julli joxe azaka ca loolu itamit mbokk mooy sécurité la nga xam ne mooy ngóor ngóor gu yàlla di joxe la nga xam ne mooy sàmm ngóor gannaaw ngëm gu sell moo ñuy taxawal julli ci joxe zakat bépp société boo xam ne taxawaluñ fa julli joxuñu fa zakat jàmm du fa am loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni topp leen yonent bi ngiree ñu yërëm leen gaa yi mi ngi noonu suñu borom mu ne topp leen yonent bi ci kaw su ngeen ko toppee jub ci fin bi fii mu ne topp leen ko ngiree ñu yërëm leen yow mi bëgg yërmande adduna ak yërmande àllaaxira yàlla way boo xëyee lépp looy wax ci sa diini lépp looy jëf ci sa diini gëstul ba xam ne tegtal ba nii la jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo amul tegtal ne yonent bi alayhi salaam moo ko digle nga lay bu ci dugg nga la way bu ci dugg diina mooy bu ñu def lu dul ñu jot ndigal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax la'allakum turhamun lii mbokk da ngay gis ne mooy lii nit ñi di war a gànnaayoo suñu jamono ji commencé woon na ci monde arabe ay gars yoo xam ne jàpp nañ ne dañ bëgg a jël pouvoir créer des partis politiques créer des redressements économiques waaye yooyu yëpp dafa naax saay ca ba tey it bépp jullit boo xam ne da ngaa bëgg yàlla may la kattan ci kaw suuf mënoo koo jaare lu dul delloo nit ñi jàngaleen façon pas-pas bu sell delloo leen ba ñu dundal sunna yonent bi alayhi salaam amul benn société bu mel noonu lu dul yàlla dimbali leen moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan in tansurullah yansurukum su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen yàlla neen dong lañ koy dimbalee mooy ñu gëm ko buñ ko bokkaale dara toppal ko ab yeneen tam yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu barakallahu fikum suñu borom mu ni laa taxsabanna alladina kafaru mujizina fi l ard bul jàpp mukk ni ñi weddi daañ mën a të yàlla ci kaw suuf wa ma'waahum naar ca seen wàccuwaay seen daluwaay mooy sawara wala bi'sa almasir aka bon ak mujj yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm liyastazinukum lazina malakat aymanukum na leen laaj ndigal bala moo dugg si néeg yi ñi nga xam ne seeni ndeyjoor ñoo ko moom muy seeni jaam walazina lam yab walazina lam yablughul xuluma minkum ak ñi nga xam ne jotaguñu ak majeur ci yéen alxulum mooy gént ndox génn ci yow mooy majeur guñu ci yéen salaasa marrat ci ñetti yoon min qabli salat alfajr avant ngeen di julli fajar wa xiina tada'uuna siyaabakum min adhahira ak jamono ji ngeen di teggi seeni yére ay di summeeku ca njolloor ga mooy gannaaw ba ñu julee tisbaar wa min baadi salat al isha ak gannaaw ba ñu julli la nga xam ne mooy géey salaasu awratin lakum loolu nekk ñetti waxtu yi awra ñeel leen laysa alaykum wala alayhim junaax nekkatul na ngant ci yéen ak ca xale ya ak jaam ya benn ngant tawaafuuna mi ngi noon baadahunna gannaaw ñetti waxtu yooyu tawaafuuna alaykum baadukum ala baad ngeen nekk di wërante ci seen biir lenn la ca la ca des kazalika yubayyinu allahu lakum lakum al ayat nii la leen yàlla di leerale aaya yi wallahu alimun hakim yàlla mooy ki xam mooy ki xereñi mi ngi noonu mbokk julit rawatina yow jeune heure bu ñuy wax ci yow wàllu diine sa xel mën naa dem ci yéefiir yi ñoom day xamuñu yàlla déggaluñu yàlla te fuñ toll ci progrès ren la ñuy fekki déwén moo ko ëpp ñi ngi noos guddi ñi ngi noos bëccëg waaye suñu borom yàlla day subhanahu wa taala mu ne xamal ni ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla bañ koo déggal te mooy déli bi gën a rëy bu doomu aadamay def ci kaw suuf mooy ak kéefér mbokk julit bi gëm yàlla rey téeméeri nit njaaloo nan sàngara ba baa muy dee du tee ñun dañ koy sang jullee ko suul ko ci sëg ya ñaanal ko yàlla bàyyi ko boroomam amma yéeféer moom mooy plafond ci mbon képp koo xam ne yéeféer la amutul lañ koy wax luñ koy waxal suñu borom nag mu ne ñooñu nii ñu nekkee di wëndeelu ci ci ci dëkk yi taqallabuhum fil bilad ngalawaay loolu bu mu la yéem ñoom mënuñoo te yàlla mu gaa yi ana ñu jiite woon Amérique cent ans ci gannaaw waxuma sax cent ans cinquante ans ci gannaaw rek ala ñu jiite woon Amérique ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf loolee kon ñu gis ne suñu borom kenn du ko të mu ne ñooñu seen wàccuwaay mooy sawara loolu moo tax suñu borom mu ne ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a am borom xel afa man yulqa fi nnaar xayrun am man yati aminan yowma alqiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ay yéen yéeféer yi ndax ki nga xam ne lu mu yàgg-yàgg dañ ko sànni sawara dana yem ak kii ñëw ànd ak dal yowmal qiyaama déedéet kon lu leen neex def leen mbokk yàlla jox na yéeféer carte blanche lu leen neex def leen i'malu ma shi'tum waaye nag innahu bima ta'maluna basir yàlla ngi gis li ngeen ñi def mooy lu mu yàgg-yàgg seen fay mi ngi leen di xaar te loolu it mbokk julit képp koy ñii ci àdduna lan koy ñee xoolal fu mu ko jëme xoolal fu mu ko jëme n waaye ngi ni yor alal judul jeex mi ngi banneex yépp mi ngi ko dajale waaye war nga laaj sa bopp ndax kii mi ngi ci ngërëmal yàlla am déet su dee nekkul ci ngërëmal yàlla sawara la jëm ndax ku jëm sawara jar naa ñee abadan wala ñu bàyyi ci xel bu baax kon képp koy ñee ngalawaay ñeeye ko ca la lay yóbbu aljanna borom alal dee jar naa ñee borom alal ba nga gis alal la mu tàggat ko di ko def fa neex yàlla jar naa ñee ñaan yàlla am lam am bay def la muy def borom xam-xam bay jàngale di jëfee jar naa ñee ngiree nga am yoolu la muy am waaye mbokk gannaaw lii yeneen ci bi alayhi salaam nee na julit bul ñee keneen ku dul kii laa xasada illa fis na tey ñaar yi rek nga war a yee jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne aka bon mujj mooy sawara mu dellu si waat ci suuratu nuur di saar bi leeral kër gi leeral société bi mbokk da ngay gis ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama bi am personnalité ci boppam bëggit sàmmal ñu suñu njaboot doomu aadama bi am kersa am na position yoo xam ne boo ko fekkee ak yaramu neen loolee mbokk dana ko frustré te dana yàq personnalité moo tax suñu borom yàlla tëral ne kër gi buñ buñ nekkee ci kër gi yéenu neen ngeen ñii seeni jaam lañu ñii seeni doom lañu ngalawaay bu bu mu def rek ku nekk waxtu wu la neex rek nga ubbi rude bi dugg ci biir néeg bi déedéet seen doom yi majeuragul commencé ràññee xam nañ ba commencé ràññee ay cinq ans jëm kaw ràññee nañu bu leen permettre te ñu dugg ci néeg bi lu dul dañoo fëgg ba ngeen jox leen digal lu waral loolu mbokk julit suñu borom yàlla indi ci ñetti waxtu avant fajar après tisbar bi ngay sieste te ñoo xam ne it sieste boobu sunna la du aaday tubaab de aaday diine la yonent bi alayhi salatu wassalam daana wax naan qiiloo fa inna cheytaana la taqiilu la yaqiilu day leen sies cheytaane du sies même bu doon dix minutes rek ngay wér sa wet jogaat sax baax na ak gannaaw biñ julleegee ba pare mu ne loolu waxtu awra la yoo xam ne am nga droit summeeku ci mi ngi noonu am nga droit it jéega ci sa soxna ca xale bi nga xam ne mooy xale bu ndaw la nga xam ne moom ngay nekk di jéeg ak sa soxna waru koo teel a gis lu waral loolu ndax amagul maturité bay xàmmee la ca dagan ak la ca xaram mbokk yahudi yi ñoo créé cinéma tasaare ko ci adduna bi mais état ya nga xam ne fa lañ ko tasaare woon occident de manière générale ñoom xamoon nañ danger film yooyee ba nga xamee ne amul benn film cinéma bu doon daw lu dul dañ ciy bind interdit au moins de quinze ans yéen ñi daan déglu rajo RTS bu jëkk xamuñu xam naa léegi cinéma moom xewi na waaye bu jëkk même bu daan def annonce film yi ci rajo bi dañuy wax interdit au moins de quinze ans loolu mooy film naturel rek amma film bu amee violence dañ naan interdit au moins de dix-huit ans lu waral loolu mooy xale bi seetaan film day jàpp ni lii mooy réalité adduna su jógee rek da koy daal di jëfee loolu moo tax mbokk njaaloo gi gën a tasaaroo ay cas inceste mooy ay nit ñoo xam ne ni ñoo bokk ndey ak baay wala bokk baay di sëy gën a bari lu tax loolu mooy xale yooyu nga xam ne dañuy teel a gis ak jaxasoo góor ak jigéen ca ràññee wuñ ca dañ koy bëgg a teel a essayer loolu moo tax suñu borom ne déedéet xale bi tant que doon na ko ràññee ba mu dugg ci néeg bi mukk lu dul dafa doon koo xam ne ku yëglu la malheureusement la yàlla doon bañ xale bi gis ko tey bàyyi mooy dem jëndi télévision ñëw xale yépp toog mu toog ak mu toog moom it mën dem sax bàyyi mi ngi toog moom it mooy bàyyi maam sët ñoom ñëpp ñu jàkkaloog télévision bi tubaab bi jàpp madam lem yéegal ci kaw lal bi ma inspecteur Samb xam naa ñëwul tey yàlla na yàlla dolli ko yiw nee na amoon nañ seen benn waay boo xam ne xel mi dafa xaw a dese mais bu ñu daan seetaan télé bu amee ku jël as ndaw lem tëdd ci kaw lal bi mu ne kii est ce que jabaram la waaye wax ko li muy def baaxul waay ah yaa ngi dégg ah voilà loolee mbokk da ngay gis ne ñun mooy natt bi ñu yàlla nattoo moo tax xale yi ci bëri amatuñ kersa xamatuñu aqi way jur amatuñu ay born jàpp nañ lu leen neex def ngiree ne loolu ñu gis te wuruñu ko woon gis waaye suñu borom moom da ngay gis ni lii la ñuy wax mu ne nag su ñetti waxtu yi passé ah su boobaa nag mënuñu fuñ toll fëgg fuñ toll fëgg fuñ toll fëgg bàyyi leen leen ñu dugg nu mu leen neexee ci biir néeg yi waaye yéen ci bopp ngeen bàyyi xel loolu ma fàttali leen bi ñuy jàng aaya hijab Sénégal nag am nañ fi benn soxna boo xam ne dafa défier alquran défier borom xam-xam yi nee na moom dana xeex lu mu mën ci addunaam pour xale yi jigéen yi bàyyi hijab waaye waxuma Espagne waxuma Portugal de Sénégal gi la amee koo xam ne dañu prof université la nee na moom dana xeex combat contre le hijab ndax man indi nañ ma suuratu hijab yaa ngi dégg xool naa ko xool naa ko waaye boo ko seetee da ngay xam ne lii du dara lu dul aaday naar yi ah yaa ngi dégg waaw ñun nag ñun jàng ñu suuratu hijab ñun lañ jàng ay hijab bañ jàng ay hijab mbokk jëlit waxoon naa leen ñetti awra yi ñu war ko xàmmi jigéen xamal da nga am ñetti awra am na awra boo xam ne kenn doo nga am dara gis ko muy sa borom kër muy sa du sa ndey du sa baay du say doom te mooy la nga xam ne mooy li jëm say fay ak la wër fay ba am leneen loo xam ne ñeneen ñi jege am nañ dara gis ko mooy liste bi yàlla subhanahu wa taala tëral muy baay ya frère ya ak la nga xam ne rakku bàyyi yaag yooyu nga xam ne sëy dafa xaram seen diggante ñooñu lépp loo xam ne place su takkaay la am nañ droit di ko ci yow mooy sa weel yi jëm kaw mbagg yaag bopp yaag yépp sa loxo yi digg përëg bi jëm suuf yeel yeeg yépp am nañ droit gis foofu lañ yem mu am beneen catégorie muy jàmbur yi jàmbur yi ñoom amuñu droit gis ci yow lu dul sa kanam ak sa loxo fi ñuy takk montre jëm suuf te borom xam-xam yi gën a tolérant comme ni leen ko waxee ba ñuy jàng aaya yi aju ci xijja kon lii mbokk lañu suñu borom wax ci wàllu googee mu ne nag moom mooy ki xam mooy ki xere ñi képp koo xam ne topp na ay ndigalam fokk yu it nga doon koo xam ne ni ku sage la yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم jazakumullahu xayra suñu borom mu ni wa ida balaga al atfaalu minkum al xulum suñ demee ba seen seen ndaw ña ci yéen jot la nga xam ne mooy ak majeur fal yastazinu kama stazana alladina min qablihim nañu laaj ndigal comme nam ko doon laaje ñu jiitu woon kazalika yubayinu allahu lakum ayati naka ñii day la yàlla di leere la ñeel leen ay aayaam wallahu alimun hakim yàlla muy aji xam aji xereñi walqawaidu min annisa ña nga xam ne toog nañ ci jigéen ñi ñi ngi noonu qaad na an tasarruf xam ne dematuñ fenn allati la yarjuna nikaha ñoo ñi nga xam ne yaakaaratuñu dugg ci ab sëy fa laysa alayhinna junah ñooñu am ñu benn ngant an yadana siyabahunna ci ñuy teggi seeni yére ay summi seeni muraay gayra mutabarrijatin bi zina bañ a doon nag ñoo xam ni dañuy doon di génne di génn di génn seeni taar wa an yastafifna xayrun lahunna waaye suñu fegg woon de moo gën ñeel leen wallahu samiun alim yàlla aji dégg la aji xam lépp la mi ngi noonu bokk suñu boroom mi ngi wax xale yi nañu leen jàngal ñetti heure bala ñoo dugg nañu fëgg su heure yooyu passé mën nañu dugg sans fëgg léegi nag borom bi nee na suñu majeure alxolum mooy nga tëdd guddi gént am lu génn ci yow loole am na ñoo xam ne daañ ko yéex a def am na ñu koy gaaw a def bu dee ci wàllu âge bi lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ koy tënk ci ay 15 ans ñu ngi noonu ci ne xale yi day majeur ca la nga xam ne ni moom mooy 15 ans am na ñeneen ñuy yéex a majeur bay dugg sax 18 ans ndax surtout ci race yi ñoo bokkul tey da ngay gis kenn ci yenn ci dëkk arab yi lu mel ne ay soudan yooyu boo ci gisoon kenn ko am 20 ans nga boole ko sénégalais bu am 30 ans da nga naan mën na ko jóg kon ala kulli xaal mooy heure boo xamee ni nii yëg nañ ni xale bi majeur na léegi nag moom ñëpp a yem à heure bu mu mën a doon bu ñu dugg lu dul ñu fëgg te loolu it ku nekk war na ci yar boppam doo wax rek ni fii sama néeg yaay la heure bu la neexee rek priorité bi yaay nangam nangam fii sama néeg doom la heure bu la neexee priorité bi nangam nangam déedéet maadaama tëj ngeen seenum néeg wala firi nañ seen rido bul ñëw mukk mun dugg ak heure bu mu mën a doon maadaama da ngaa majeur moom heure bu mu mën a doon bul dugg mukk néeg jàmbur lu dul fëgg nga bañ jox la ndigal ah man ngaa dem fekk yaay def yaramu leen di di dee gëm la man ngaa dem fekk doom def yaramu leen di dee gëm la loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax képp ko majeur bu mu dugg ci nekk lu dul mu fëgg borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne nii laa leen di leerale samay aaya te xam leen ne yàlla mooy ki xam mooy alxakim mooy ki sage ki nga xam ne ay njàngaleem ku ko topp doo réer mu ngi noonu borom bi bàyyi loolu ñi ngi ci suurat nuur ba tey saar bi nga xam ne mooy leeral kër gi di leeral société bi borom bi ñëw ci jigéen ñu màggat ñi alqawaid nga xam ne magee nañ ba mënatuñoo dem fenn ay di toog lañu ci kër ga rek la ñuy toog amatuñu benn soxlay àdduna suñu borom yàlla nee na ñooñu bu leen neexee dindi seen muuraay yi bu leen neexee dindi seen muuraay yi mbokk muy safaanoo ak aada yi Sénégal mbokk Sénégal màgget buñ gis muuru woo dañ naan waay kii moo sàggan waay am déet dañ naan kii moo sàggan am naa xale bu jigéen bu ñu gis nga muuru ñu jàpp ne da ngay gaaf tinc gars yi loolu ndakaaru gii la de ndakaaru gii la muuraay yi normale de waaye dugal fii suñu àll bi rek ab jànq boo am ay vingt ans trente ans muuru ci kanamu nit ñi ku ko gis ne day gaaf tinc am déet pour ñoom kii jëkkëram dee rek mooy ki ki ki war a muuru moo tax dañ naan waaw waa kër diw kañ la ñuy muri sax mu yàgguluñ dégg loolu waaye waa kër diw kañ la ñuy muri kañ la ñuy wàcc waaw kañ la ñuy wàcc kañ la ñuy muri lu tax mooy bu jëkkër ji dee ñu muuru bu amee quatre mois dix jours ñu muree ko waaye xalaatuñu ab jéeg di muuru ci jëkkëram deewul mi nga noonu ma nga leen nettali fii tafsir kasamu boobu léeg-léeg ngeen koy dégg ci réseaux sociaux yi mas naa def waxtaan fii ci jàkka ji mi ngi dëkk kër ma daaro dafa am ñaari soxnaam ñi ngi toog muuru benn góor caamel jóge ci àll ba bi mu ñëwee gis leen ne ah ndeysaan waay kot kot kot kot kot génne fukki dërëm sànni leen ay waay jëtur yi daal ay xale lañu jëtur mooy ku jëkkëram dee ay waay ñii seen jëkkër dee daal ay xale lañu ndax pour ñoom ku muuru rek su jëkkër daa dee mbokk loolu nag da ngay gis na erreur la suñu boroom dafa sant xale bu jigéen bi fi mu demee bay nekk di gis baax amatul droit lu dul buy génn day muuru loolu la war a nekkee ba baa muy dem ba amatul soxla ci biti doon màgget bu ko neexee dindi muuraayam waaye suñu borom nag nee na dindi muuraay biir ça veut pas dire na nga toilette ba jekk nag xëy na mu te bari jatim bi siine te mooy dina ni faccam mën naa dem ba am soixante-dix ans ba yaakaaratul sax keneen ku ñëw di ko takk si suñu borom mu ne faccam mën ngaa dindi sa muuraay waaye nag faccam bu mu ca boole fudd nu ba jekk takk ay ooram xëy ñu ba jekk arab yi dañ naan lépp lu wadd rek am na ku ko mën a for am déet yaa ngi dégg am na lu lu wadd rek am na ku ko mën a for te moo dina fàttaam noonu nga mel am na koo xam ne moom bëgg na la ci loolu looloo tax suñu borom mu ni buñ ca boole di gën a taar waaye nag suñu tegu woon continuer muuraay bi moo gën gis ngeen yàlla na yàlla yërëm asma bint abou bakar asma doomi abou bakar mooy magu Aïcha radiallahu anha dund na lu ëpp téeméeri at foo ko mosaan fekk mi ngi muuru ba daj gis kenn ci ay jabootam na ko woo asma ah suñu borom nee na jigéen ñi màgget ñi mën nañoo bàyyi muuraay mu ne ko ay wattu nga ko mu ne ko ak mu ko jàngal ba ma dégg waa ji jàng ba yegg si ci fi suñu borom wax nag ni wa an yastafifna xayrun lahunna waaye bu ñu feguwul moo gën ci ñoom te mooy suñu borom ne jigéen ñi mën nañoo ba ñu muuru waaye bu ñu muuruwul moo gën ci ñoom asmaa nag na ko waaw damay def li gën ci man yaa ngi dégg damay def li gën ci man donte ne yàlla teggil na ma ko waaye nag muuraay googee yiw la moo tax may def li gën ci man lu tax mbokk loolu dafa nekk identité jullit muuraay identité jullit la dafay aar jullit te tey jii maa ngi am suma benn soxna bu nekk fële ca Italie avant masque yi di tasaaroo fii sax mu ne ma cay imam coono bi ñu amoon suñu muuraay ji mu ne tey boo ñëwoon ville bi ma nekk dañuy gis góor ak jigéen ku ci génn kenn du gis yow dul say bët gars yi nee nañ tey nee nañ mu bët yi sax dañ ko muur am yéen ci corona bi nee nee nañ masque yi ci la ñu taw nee nañ bët yi sax dañ ko muur parce que nee na virus bi di dugg ci bët yi dañuy gis ñoo xam ne ni góor ak jigéen kagul yi ñuy sol kenn du gis ñoom dara loolu moo tax di ne yàlla digle ñu muuraay gars yi di ko xeex di ko contesté corona ñëw moom digle ko ñëpp jëkkër di jëm ci waaw wane ne kon yàlla mokk lépp lu muy digal rek suñ njëriñ dataa nekk àdduna suñ njëriñ nekk ci àllaaxira lii kon mbokk mooy bind bi nga waroon a jël ci suratu nuur yal na yàlla leeral ci suñuy xol leeral ci suñuy jëmm leeral ci kër yi leeral ci suñuy société wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallallahu wa sallam ñu ngi noonu kon dañuy doyloo loolu incha allah ñu 6 heures 5 comme passé na ñu leb question yi ba beneen barakallahu fikum